lépp ay oto yu bees la mu daal di lakk ba jeex donc nee na fii tey buñ doon xayma li nga xamante ni moo di euh, valeur bi amaana dina jéggi dayoo waaye comme li mu wax donc nee na lakk bi dafa yàgg donc te kenn réagirul sapeur bi nga xamante ne moo ñëwoon tey jii pour euh, di leen dimbali donc yéen a ngi gis oto oto sapeur bi donc yéen a ngi gis oto sapeur bi bi ma leen laajee léegi ndax lakk gi dafa continuer waat mu ne ma en cas où bu fekkee dafa amaat rek looloo taxaw euh, li nga xamante ne waa oto sapeur pompier daal di fiy postulé wu alors depuis ce matin pour en cas bu fekkee dañoo gisaat feneen fuy lakkaat

bu ko doon estimé amaana ay million lay doon waaye dañoo gëm yàlla dañuy continuer ba léegi si intervenant yi nga xamante ne tey jii nii fas yéene ñoo jàkkaarloog Dakar Instant wax li leen metti ci li nga xamante ne moo di lakk bi naam nangu nañ dogalu suñu borom la waaye fee yi nga xamante ne am na ci ba léegi ñu kenn ci autorité bi. nañ leen torop GMI yi policiers yi waaw waaw kay problème GMI yi lan la ci lakk gi. ñoom ba mu amee ñun suñu bagage dañ ko génnee fii ni si bët mhm. ñu toog di ko garder mhm. ñu toog di ko garder ñoom ñu ñëw fii nii dañuy sànni ay lacrymogène ak ay la mhm. démb si suba la ba benn maire daanu fii nii bañ mujj ko dugal jël ko yóbbu ko si sapeur pompier bi foofu noonu ba samp ko biteel parce que ñun mën nañ mën a lakkale nekk fii si bunt bi ñu naan ñu jóge leen fii nii si bunt bi te suñ ñu jàkkaarloo suñu luy bagage di lakk ñu koy war a génnee ñun dañ ko génne mhm. ñu toog si bunt bi nii ñuy sànni ay lacrymogène fii dafa jaar ay lacrymogène ñun xeexuñu defuñu dara tok fi ci buntu bi di garu suñu bagage ñuy sané ay lacrymogène loolu yoon la léegi ñu ko sandé nu ngeen def ak seen bagage yi lu ñu def daw tas tas daw mais dañu ko mënu gérer toog fi am ñu tëdd fi ni am problème mais ñun bañ ko defee lacrymogène dañ ko mëna dékk dékku après fu mu mujj wax mujj fu mu mujj mujjul fenn muy mujjul mujjul fenn message ngay lancer ci lool wax mais metti na trop nit bu lakalé bo ñëwee manam bu lu dara sax nga yërëm ko ci loolu noonu nga yërëm ko ci lakk-lakk boobu noonu maanaam loolu noonu metti ko mhm. mais waroo ñëw di ko tegaat beneen metti loolu du yoon mhm. waaw ma wax loolu Aliou Ndoye li ma koy wax man dégg naa dafa am dëj loolu lañu wax mhm. dégg naa dafa am dëj moo tax mënul ñëw mais bu heure bu mënee ñëw rek na fi jaar rek ñëw waaw parce que li metti na trop moom dañuy soxla ñoom ñu koy ñun ñu koy demal kon lii nii bu amee nii kenn rafetul ko yëg na ko mais na ñëw bu fekkee tam daam ko téye tam ñu xam loolu la rek parce que dañoo wax suba daa am benn boo xam ne dafa fa la dem mais bu ko rek mu ñëw ma sawuñu rek yàqu si dara. lan yi. waaw ah, ay ndaw lañ rek ñun ay ndaw lañ dañuy daan suñu doole amaana li def démb nag rafetul parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ seeni rakk doo nga fi nekk ak seeni mag ay kilifa mais amaana ni ñu doxalee démb ñaaw na. nan lañ doxalee démb. fait lakkale nañ ñun ñi moom bagage yi lakk ñu ngi fi te ku nekk xam na lakk ni mu demee. bu tasee jaaykati feeraay yeeg sàcc yeeg lépp ci biir te mi moom sa bagage boo teewul rek sala gisoo dara mais doo gis dara ñu génn ñu dàq ñu taxaw leen ne ñu fay lakk bi ñu taxaw ne ñu mujj na ñu jóge leen foofu mais boo jógee foofu foo jëm ak say bagage yi lakk rafetul amaana nag juum nañ juum nañ mais li ñu def démb rafetul ñun ay sénégalais lañ ay sénégalais lañ waaw loolu laay wax ci ñoom. alors seen bagage yooyu ndax jotaat ngeen ci. waaw bagage yooyu mënuñ see jotaat mënuñ see jotaat. lu waaw mais parce que biñ ñu dàqee tamit ñi nga xamante ne jëlkat yi dañuy jël. donc ngi ñëpp a ngi fi gis nga ñii fii ñi fi wut feeraay ñii kenn daaw fi liggéeyee kenn dëkk fi kenn dëkk fi mais ni ñuy def dañuy toog muñ mhm. yàlla moo ñu ko joxoon amaana dencal nañu leneen lu ëpp lan message di lancer Aliou Ndoye ak gis nga lakk gi ni mu ay doomu sénégalais ñoo lakkale fii nag ngay gis ni lu nekk am fi dañ daan liggéey ay dóorkatu waar kese fi ñi fi famille lañ yor waaw wax mu ñu ñu parce que tamit jël ay doomu sénégalais lañ def naka fii nii koo fi jox mi ngi ak fii nii ñi fi nekk ñëpp ñu ngeen ak métier ku ci nekk yaa yoon sa place di ci suturlu waaw di ko ñaan mu dimbali ñu rek di dimbali ñu bu baax a baax xam ne ay doomi Sénégal lañ waaw ñun moom lañ am waaye ñun it moom ñun la am. Aïcha ba léegi gis ngeen ne ñi nga xamante ne ñooy marchand ambulant yi bi nga xamante ne am nañ ko jëmale ko alors ci euh, policiers yi. alors jëmale ko ci ñi nga xamante ne les forces de l'ordre ndax démb dañu doon euh, door ay grenades lacrymogènes donc nee na ci lañ jaaree euh, ñàkk seen bagage ndax sàcc yi nga xamante ñi ngi fi donc ñu xool benen côté bi aussi yenn intervenants parce que itam askanu Sénégal euh, li ñuy dund jamono gi fi nga xamante ne moo di Petersen métti na donc mënuñoo leen mënuñoo mënuñu seen bagage lak ba nopi policiers yi ñëw di leen def naka sudul noonu way itam sàcc yi ak ñi ras dem itam nek ci biir mu nek phénomène bu jéggi dayo delloo ziar bu wér kay. tur bi nan la. kii suñu Saliou Diagne Baye Fall lañ koy wax. ayca Baye Fall ñu fekk la ci lakk gi ndax fii nga doon liggéeyee. waaw fii doon liggéeyee. di fi suturloo. di fi dalloo. te itam bi mu amee nag mu doon lu doy waar loo xamante ne ni waaw metti na xol yëpp tooy nañ waa waaye sant yàlla rek. ñu ngi sant yàlla bu baax. ayca da nga fi amoon place wala ay place yoo xamante ne tey jii lépp dafa lakk. waaw fii yàlla dogal na amoon nañ fi place. amoon ay employé tamit ñoo xam ne dañ leen daan fay waaw chaque jour ñu ne ñu loo xamante ne nii suñ xaalis la ñuy dépassé loolu moom moo ñu gën a marqué léegi ñooñ noonu xamoo ba xam dañuy dañuy obligé daal mhm. dem feneen ak yooyu noonu xaalis bu bëri daal ñàkk nañ ko da ngeen bàyyi woon fii xaalis aussi waaw fii bàyyi woon nañ fa xaalis ndax amoon nay natt yu ma teggi woon samay bagage yu ma jëndoon mhm. te nii xam nga si guddi gi daal affaire bi yaa ma gën a xam daal mais doy na waar daal. donc da nga fi bàyyi xaalis. waaw ndax ma ma daan dallu. sama xaalis daanaka daan bàyyi ndax man fi laa daan dalloo. fi nga daan dalloo am na feneen waaw foo xam ne fi laa daan yàgg naa fi. waaw yàgg naa fi lool. alors dégg naa démb ñi nga xamante ne mooy euh, police donc da leen doon dóor ay grenade lacrymogène pour tas mbooloo bi ñu bari nañ seen bagage yi jaaree fa euh, xale yi sàcc ko. waaw lool loolu dëgg la ndax ñun bii loolu di ñu ngi fi di bind recensement yi ndax ñun xeet gi foofu la ñu fekk mu doon lu doy waar loo xam ne ndax ay nit bu buñ lakkalee ñàkk boo ñëwee am na neneen noo xam ne moom nga war a réaliser loolu ñëw di door ay lakkale monsel ndax loolu mënoon naa jur yeneen fitna yoo xamante ne nii day doy waar ndax nit ki ñàkk euh, lakkale tamit ñàkk alalam war ngaa ñëw taxawee neneen loo xamante ne nii surtout nga doon ay police waaw da ngaa war a dawal yërmande waaw loolu daal moom métti nañu moom tamit. alors ñoom bi ñu leen dóoree ay grenades lacrymogènes yéen toppoo leen ñoom ci aspect bi ñu nekk. non ñun topp ñu leen ndax moment boobu dañoo tasaaroo ndax moment boobu maa ngi fii si BRT bi. di bind léegi nag xet gi fi la ñu ak sapeur bi ñu doon bind ñun ñëpp métti métti lool. waaw ndax mënoon naa doy waar daal xale yi jël nañ ko. waaw xale yi jël nañ ko ba nii booy yaa ngi nii di jël feeraay bi nii. Mhm. xam nga mais mënuñu te booy yi jël feeraay bi yéen mënoo leen wax boo yi dara. non booy yi mënuñu leen wax dara ndax instant comme que lii am am na ba pare fi dool doon lii mbooloo la ñu ngi nii di jël nii xam nga tey boo ñëwee naan kii bàyyil kii kii bàyyil dañ koy jàppee yëfi soxor mhm. te lii am am na te ñun suñu xaalis moo fi ñaak moo fi kii mhm. te itam suñuy bagage moo fi lii dañ leen bàyyi rek ñu obligé rek mhm. waaw moom daal moom metti na loolu nag ba sa kanam yàlla waaye daal sant yàlla waaw xanaa xam naa lii ñëw moo a ah, ban message a ah, xanaa gën a góorgóorlu rek xam na lii moom dogalu suñu borom la rek waaw ndax am na ñoo xamante ne nii fii ñoo fi ñàkk la suñu garaan yi fële na ne fi ñàkk ñun ñun ñàkk ñu tamit kon dañuy dañuy delloo gën a sant yàlla rek waaw ndax am na ñu fi ëppale am na ñu fi ëppale. waaw. jaajëf ba lu mu wax dénk ñoom ñëpp di ñaawlu taxawaayu policiers yi ci li nga xamante ne alors démb am na ci bile lakk ak niñ leen doon dóoree ay grenade lacrymogène ba tas mbooloo bi amaana ñu ci ëpp daal di ñàkk seen bagage di ko ñaawlu bu baax a baax a baax à travers Dakar sax à travers internet yi nga xamante ne ñoo ñu bàyyi xel waaye itam yi ñuy bàyyi xel tey lii lañ leen andiloon fi nga xamante ni moom moo di marché Petersen mu nekk marché boo xamante ne àdduna wërngal képp ñëpp xam nañ ko ay message bu ñuy lancer fi nga xamantene alors moy ci bërëb bi ñu taxaw di interpeller ki nga xamantene modi maire gox bi ki nga xamantene moy Aline Ndoy waye aussi tamit di wo ki nga xamantene moy premier da waye tam di wo njiitu rew Sénégal mu jàppale ndaw ñi ndax de ngeen lu ñu wax ñom seen xel ak seen intention du sax jël li nga xamantene moy gal mi dem bëkki waye tok fi teral way jur tok teral njabot ba taxna rek message bu ñuy lancer moy képp kuy autorité képp kuy volonté na ñëw jàppale leen bu ko défé ñu mëna reprendre seen activité waye di ñaawlu bu baax baax li nga xamantene policier def nañ leen ko